mbokki Sénégal mbokki réew mi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 te xam ne vraiment feebar bi mu ngi ci réew mi te jugagu fi gannaaw jugagu fi nag nañ xeex ak moom ñaan yàlla suñu borom mu jëlee ko fi ba ñu delluwaat suñuy activité may nuyu Père Birahim bu baax di ko siyaar sama papa ji euh, di am kontante bu baax bokk ak moom plateau bi Père maa ngi lay nuyu bu baax di la siyaar waaw jërëjëf maa ngi wax billahi sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim hmm. rabbi israh li sadri wa yassir salaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi nu bokk internet yi nga xam ne ñu ngi safoo site bi nekk tuddoo tudd wasaare lamb mm-hmm. eh, di toog fii di fas toog ak sama doom sama xarit eh, muy jiili mm-hmm. kebe di sama doom di sama lépp wax dëgg yàlla di mooy bu di nuyu Bachir ak Adama ak mm-hmm. ñoom kàggoog ñoom Ousin ñëpp ak sama doom bi xale bu jigéen bi mbenn mbenn mbenn tamit maa ngi koy nuyu ak ñi seetaan yëpp daal mm-hmm. di ñaan jàmm nag ci réew mi yàlla na fi yàlla def jàmm dëgg la di ñaan ci yàlla mbas mi fi nekk mm-hmm. yàlla na ko fi yàlla jëlee mm-hmm. ñun ñëpp nag nañ ñaan rek catholique bi na ñaan ci diineem jullit bi na ñaan ci ab jullit ñaan rek la kon nañ ñaan yàlla yàlla na fi yàlla teggee ba kenn ku nekk delluwaat say activité parce que bu ñu demee ba léegi ñu ne ah nit ñi kat léegi nañuy tëdd neuf heures neuf ba cinq heures du matin defe naa cinq heures lay arrêté. Hmm. man yooyu dama koy fàtte sax parce que man damaa tam damay taal teel a tëdd ma. ah yéen mag ñi man naka sax. Hmm. ba may ndaw sax di sport hmm. a tëdd ma ko daan Alaaji Sarr ndeysaan maa ngi koy nuyu de passe sax dama daa wax ne ma yow ganaar nga rek bu ñu leen nii rek nga dem. waaw ganaar nga rek suñu leen nii nga dem tëdd ma ne ko man. Mm-hmm. kuy teel yow dafa war a teel a tëdd. Mm-hmm. boo man damay liggéey. comme damay liggéey te war na bala maa liggéey war naa dem entraîné ji ba pare door liggéey mhm. mais kon booy man damaa war a teel tëdd dëgg la ci laa ko tàmmee ba dëgg nii bu dee amu fenn fu ma jëm mhm. tëdd rek mais père moo jullee tëdd naa mhm. mais ñëpp di ñaanal ñëpp yàlla yàlla teggi mas bi fii jaw waaw mais noo gisee xale yi nga xamante ne sama classe yi vingt et une heures nga tëdd ñu ne dee du ñu tëdd euh, nekk ci mbedd mi taal puno sànnantey xeer euh, ngir ndogal bi nga xam ne wàccee na ci kaw gënal leen ñooñu loolu lañ ñoo leen gisee. waa loolu xam nga laam dafa loo xam ne lii. Hmm. soo koy dee sonal nga sa bopp sonal nga nguur gi. dëgg la. parce que nguur gi tam dañuy sonn parce que ay alkaati yi ak gendarme yi ak armée na nañoo liggéey leneen lu dul dàqanteeg ay xel di sànni xeer di sànnante xeer di dàqante amul njariñ hmm. loolu lépp loraange yëpp ci civil bi rek lay mujj dëgg la loraange ci civil bi rek lay mujj kon yéen civil yi hmm. yéen ñi ngeen xam ne tey ji dañ leen tere nangam xeex leen ak seen bakkan di teel a tëdd di teelu di yeewu heure bi ñu leen wax. Mm-hmm. comme dañ ne mbas la moo xam ne jóge na ca gouvernement ba te réew yëpp tey jii ñu ngi jànkoontoog lii. Mm-hmm. nañu xeex sunu bokkeen dellu si waat ci lii yaraat sunu bopp. Mm-hmm. nañ yar sunu bopp. maa ngi nañ yar ndaw ñi ndaw ñi yaru. mag tam bu yaruwul mënut a yar gone. mag la jëkk a yaru. man door a yar gone. loolu mooy yoon loolu mooy loolu bi. yaa ngi dégg gone yi tamit. ay sànnanteeg alkaati dàq naa alkaati du ndam. dàq naa gendarme ba du ndam de. dëgg la dàq naa alkaati ba mu dàq. Hmm. du ndam de. boo xam ne bis bu la nee niip hmm. ah ci xale bu ndaw boo xam ne boo moo yaa ko mag fuuf hmm. wala yaa ko doole fuuf bul ne toogal nga toog bul ne jógal nga jóg bul ne tëddal nga tëdd kooku dàqante mu am ndam amu ca déedéet ndam amu ca déedéet waaw ci kaw te li ñu lay wax da ngay aaral sa bopp rek la ñuy wax moytu jàngoro ji dee leen teel tëdd dee leen takk masque yi ah, loolu de ku la ko wax moo ngi yow ànd ma bëggoon nag xale yi nañu yeddaat seen bopp Mm-hmm. di teel a tëdd di teel a yow daani seen doole bu ñuy toog seen kër mm-hmm. waaye dàqante na ak gendarme ak policier ak ak li ma def gendarme mm-hmm. loolu ndam de jërëjëf am na solo donte euh, heure bi am na ci ñoo xamante ni arrangé wu leen waaye ñu nangu ndogal li rek nga xamante ni ci kaw la jógee vraiment réew mi li ñuy daj ñëpp xam nañu euh, Pape Diouf waykat bi da doon wax naan ku njëkk a yuuxu da ngaa ragal kon dëkk bi moo toll foo xamante ku njëkk yuuxu rek da ragal Mm-hmm. metti na waaye nañu santaat yàlla bu baax xam ne ay jaam lañ yàlla suñu borom ku mu bëgg rek lay teg natt mm-hmm. per démb dafa amoon benn télé muy 2STV mm-hmm. euh, dañu defoon benn émission euh, confrontation ñu dajale ay ay mbër ay ñoo xamante ni ci wàllu ñaan la ñu nekk te ku wax ñaan wax làmb làmb ku ne xam ne ni mbër yi moom li ñu gën a farataal ci làmb ñaan gi la donte bu dee entraînement bi sax ñaan gi moom jaral na la ñu déplacé wu. dagg entraînement dem fi ñu war a dem. démb ma dégg ci ay kàddu yu baree baree baree bare yoo xamante ni. ku ci nekk ñaankat la kàddu yi dañoo waroo. bu kiy waxee lii kiy wax lee. kiy wax lii kiy wax lee bëggoon naa xam kan mooy ñaankat ak ñaankat nan la war a mel. waaw ñaankat day mm-hmm. man ci sama sama gis-gisu bopp nag laay wax xam nga. nit ñi la mm-hmm. laajee waxal ci la nga ci xam rek. Mm-hmm. mooy ñaan ñaan gu nangu mu ngi commencé ci waajur yu kontaan ci yow. dëgg la. alxuraan nañu wax ba bil waalidayni ihsaanan. dëgg la. sa rafetal na commencé ci sa ñaari waajur. Mm-hmm. yàlla ba mu ñu waxee jaamu leen ma tegu ca sëriñ tegu ca keneen dafa ne jaamu leen ma. Mm-hmm. di ngeen rafetal seen diggante ak seen waajur. dëgg la kon tey jii ñaan gi foofu la ndey ju ndey ju xolam sedd ak bàyyi bu xol sedd gi foofu la ñaan gi ne. Mm-hmm. ñaan gi. mu ngi nekkul fenn jiili ci sa ndey xolom sedd sa bàyyi dëgg la muy benn. Mhm. ñaareel ba ngay lekk lu lew. Mhm. loo moomul bàyyi fa. day lekk lu lew. Mhm. li ngay liggéey bu ci def riba. riba musiba la. riba dàndal ni ko yàlla teree rek ni ñu ko yàlla borom bi teree rek noonu la ñu war a xeex sunu bakkan del ko. dëgg la waaye yenn yi nag Sénégal yi ñun dañoo tàmm ci ay naxaate. sama benn mag sëriñ ndeysaan yàlla ko yàlla yërëm xare ko àjjana ñu booy naar faal. daf ma daan wax père dañ daan ñëw di waxtaan moom di sàkku ci moom xam-xam. ku mhm. xam àddina la. Mhm. góor googu ñu ne ko Boy Naar Fall. Mhm. Birahim Fall la tuddoon waaye Boy Naar lañ ko doon wooyee ci làmb dafa daan wax ne. Euh, fii xam nga luy sëriñ mu ne ko déedéet mu ne fekk ku jaaxle nga nax ko ci la mu jaaxle jiili nax ku jaaxle yomb na. ku jaaxle. réer nga di ko nax loolu yomb na. ngay liggéey ci ànd mooy ndax parce que ñun ñii bu dee mbër gi. man tey jii. li ma man ci bëri ak li ma xam ci bëri li nekk ci sama dënn bii ci bëri mm. nekk ci sama bopp bii mm. wallahi taalaahi laa ba muy bëri sax mënu ma ko woon la yaa ngi dégg li walla mm. tey jii bu doon ay gàllaajee taxa daan sama taawa moomu ëpp moomu sut mm-hmm. am naa doom yoo xam ne tubaarkàlla tamit bu leen yàlla mayee gudd fan ak wér suñu dundee bañ a yàq seen bopp ay ponkal la ñuy doon mm-hmm. bu doon loolu taxa daan kon ma jël gàllaaj jox leen ko wallaahi indi leen ma ci kii waaye fi mu ne mm-hmm. dara ku ci jàngul bëri entraîné moom mënoo bëri doo daan waaw doo mhm. daan dara yooyu ay naxaate la rek ñi ci mhm. ëpp ay naxaate la ñaan am na nag du ma ko mhm. weddi parce que ñaan mu ngi dem gën ci nitu yàlla ne ko man de dama am soxla nanga ma naa ma bëggoon nga ñaanal ma ci waaye da ñaan nga nag day fekk nag ba ngay ñëw ci moom nag jili ba muy jóge nag di dem ci sëriñ bi daan ko ñaanal ma day fekk nag mu bootaali gërëmu waajuram day fekk say waajur gërëm la sa yaay sa papa ñooñu bu ñu la gërëmul keneen koo wuti wuti la ñaanal doo am dara Mhm. parce que base ba baaxul fondation ba baaxul. Mhm. fondation ba mooy nga amoon gërëmal waajur da nga yomb a ñaanal. dëgg la waaw. Mhm. nga boole ci jub ak nangoo liggéey nag. waaye yeneen yi nag ay jabar yi rek léegi làmb xew na dégg nga ku nekk rajo yi bari na télévision yi bari na rajo sociaux yaatu na kenn ku nekk ngi wut jaay sa buzz yaa ngi jaay sa xam-xam pour jaay wane ne man lii laa. am na fi ñoo xam ne du ma tudd seen tur leen toj. waaye bi ñu fii ñoo xam nañ ne. yoruñu woon dara. Mm-hmm. bu fekkoon ne xam-xam boobu la ñu bootaan indiwaale ko fii. Mm-hmm. du ñu jaar fi ñu jaar. Mm-hmm. am na fu ñu jaar di. jaar ci jaar lu metti la ñu jaar. waaye bu fekkee dañoo jógee seen dëkk andiwaale fi xam-xam. andi bootaan xam-xam ba ko fii bu ñëwee dañu ubbi seen néeg di def ñu ñëw gis. waaye lu ñu am fii lañ ko amee ba pare bëgg fi am xam-xam bu jaaxal nit ñi fu mu am. yéeme na seetaatal li ma wax rek. Euh, père mu am ci koo xamante ni. day yëngu ci wàllu ay rab. ay jinne Euh, am na ci ñu ne dañoo am ñu sax nee nañ dañoo am ay jinne ñu mm. ne dañoo am rab ba démb indi na ay polémique mm. ñii naan jinne ak rab benn la ñii naan duñu benn ñii naan benn la waaye am na ci koo xamante ni moom moo gën a yéeme moom mm. dafa indi ay ay ay bant yoo xamante ne ngeen baal ma ci kàddu yi nee nañ day yokk awra mm-hmm. euh, indi ko loolu keroog démb ñu baree baree bare bari ànduñu ci mais moom nee na xam-xam la boo xamante ni mu ngi koy defal nit ñi ñu koy gis loolu ban gis-gis nga ci am. ah waaw gis bis bi léegi xam nga man foofu. bàyyi bàyyi ji sama xam-xam soriwu fa mooy ay mm-hmm. rab ak jinne man xaw ma leen. ni ñu ko déggee rek noonu laa ko déggee mosuma gis rab. mosuma mm-hmm. gis jinne wax dëgg yàlla dëgg la Père Birahim. mosuma koo gis mosoo dégg donc nga laa ci am nag. Mm-hmm. waaw. ah xëy na nag am na ñu ko mas a gis wala da parce que nit yamul. Mhm. nit tam yamul nit yàlla li mu bindee noonu la wutalee. dëgg la waaye ne rab rab ak ginne ak yooyu yëpp man mosuma ko gis. Mhm. Ah, maanaam nag yokk ay cër nag ci biir doomu aadama bi. Mhm. bon ah, man mosuma gis koy def. mosuma gis koy def mosuma dégg sax ñu naan ma kii day yokk awra parce que. kenn ku nekk lan la yàlla bindee. soo ko doyloo rek am nga kàttan. dëgg la. kenn ku nekk na nga bañ a xeeb la nga yor. Mm-hmm. bul la nga yor. Mm-hmm. waaye bu fekkee ne kii dafa yor lii nga ne am bëgg naa lu ëpp lii. Mm-hmm. xamoo ndax boo ko amee dina la jig wala déet. te loolu musiba la. dëgg la kenn ku nekk dina yam ci yàpp dam doomu aadama daal bu amee ci moom doylu dund la mu yor yor gu yor wér gi yaram dund yam ci la mu war a yor ah. yaakaar am benn problème muy benn ñaareel ba feebar faju nag fi lañ ko fekk. nit yàgg naa feebar dégg nga jàngoro dab ko mu dem wuti ku ko xam-xam mu faj ko loolu ak waaye am maa daal sama baaraam bii dafa tuut dama bëgg ku ma ko yokkal hmm. sama dàll bi kat ma sama tànk dafa tuut dama bëgg ku ma ko yokkal hmm. sama cër bi kat nangam xool naa ne daal tuuti na dama bëgg ma ko yokkal ba ma waaw boo ko mënoon ma mu far fa yem nag foo jëm kenn xamul mën nga ko yokkali far mu ne ba kërëj di hmm. bon loolu boo ko defee musiba dal na de dëgg la <laughs> moo tax addina di day doylu rek nii la yàlla bind rek nga yem ci yooyu yëpp ay naxaate la rek ay naxaate da cee bari nag naxaate waaw naxaate bari àddina bi naxaate dafa bari. Mm. ma bëgg doomu aadama yi man ak yéen ak ñëpp ñu may seetaan. da mm. eh, ngeen yeewu. Mm. yeewu jot na. yeewu jot na jot na jot na bu baax a baax parce que am na ci loo xam ne boo ko dee dund. Eh, mën ngaa dund sax ba jóge ca eh, dem fu ëllëg si biir borom bi àtte la loo xam ne lii fekk yaa tooñ sa bopp. dëgg la waaw. père euh, dinaa ñëwaat tuuti ci ci ci wàllu xarfa xuufa yooyu parce que. Euh, am na wala amut loolu dinaa ci dinaa ci gën a xuus. Mm-hmm. parce que jël nañ jël naa mbër mu mag. Mm-hmm. boo xamante ni nekkoon na fi euh, champion boo xam ni kenn du ko werante ci làmb. Mm-hmm. mu ne moom bu daan génn. di bëre ji génn këram. Euh, ba ni muy demee làmb ja. soxna su mu dajal jigéen bu mu dajal maanaam dootoo am doom. <laughs> waaw loolu moom. ila allah akbar ndax gàllaaj ya mu doon takk ci yaram bi. astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah maa ngi jégalu sax euh, ci dégg bi. ah père ah. loolu amul. waa ah, déet déglu ma wax la. waa kon jabaram nu mu amee doom mbër ma am nay doom. mbër ma waaw am na ay ah, doom kon ay comme bi mu ngeen bokk jabaram gis na ko. wala kon day ngeen mën ji nëbbu leen. ma hmm. génn. kon nu mu amee doom muy benn ñaar stade ba muy bëri xanaa ay góor rek koy siraan kon benn jigéen demu fa. est-ce que jigéen ñooñu topp na leen ba kenn ku ni xam kër ga mu dëkk kër ga mu yeewoo ndax am na doom wala amul doom. <laughs> père bi ah, li ma la wax rek wax bu yéen ko di xam ko. nee ah. nga ku ma dajal doom doom. waaye ñi nga dajal bu ma jógee parcelle di ñëw fii ci site bi fii. ba hmm. léegi dama ne bu fekkee takk naa galaaj boo xam ne bu ma ko takkee ku ma gis am doom waaye ñi ma fi gisal que topp naa leen xam fi dëkk xam ne kii topp naa dundam ba xam ne am na doom wala amul doom wala sama galaaj gi kat moo tax kii amul doom. kii kat ba ma am ngoom boobu di bëri jëg diw laa dajeeg moom boobu léegi amul doom ñaata nit la ci mën a topp. Mm-hmm. seetaan affaire bi affaire bi dafa yaatu di. dafa yaatu. ku ma dajal doo am doom loolu sirku billaay la bokkaale la loolu ku ko def bu dee jullit na tuub def na bokkaat bu rëy rëy rëy yàlla ma yàlla jéggal waaye man de du ma ko def. Mm-hmm. takk galaaj boo xamee ni ki kooku kay konoon kenn waru koo daan galaaj ga foor na de. mais père père kon lan moo tax mbër buy bëree. Euh, naan ñu naan jigéen ñi nañu génn bu bu kenn dajeeg moom. nañ génn ñu dugal jigéen ñi ci néeg yi ñii ñu génne leen kër gi ay góor rek lay dajal. waaw loolu yëpp ay ñàng-ñàngal la loolu yëpp ay ñàng-ñàngal la waaye man mi am na ci xam ne xale bu jigéen boo xam ne bi man am na daanaa génn am na xale bu jigéen boo xam ne ndeysaan léegi kilifa sax. Hmm. de Grand foofu ñoo dëkk. ga bu ma bu ginaar dañ ma daa ginaar gu weex ak gu xonq moo ko daan saraxee nii. Hmm. di génn nii am na ndaw su xees soo xam ne dégg nga xëy na su ma tuddoon turam biram ndoy ndaw ndoy bi seetaan xam na li ma mm-hmm. Mm-hmm. dégg nga xam na yaay xale ba mm-hmm. xam na xale ba xam na famille xale ba xam naa ko mën a tudd ci site bi waaye kooku moom laa daan jox sarax bi dañ ma jox ko ko xees ma da jox ko ko moom pourtant buntu ko bi daan fees tel ak jigéen ak góor dégg nga te sarax yi loolu ñoo laa ko doon jox ñii dañ naan joxal xale ñii dañ naan joxal mag xam nga sëriñ su ne lañ lay lañ lay tegtal bu ne leen lay jox rek loolu rek la waaye bëri mu ngi nekk ci mën a bëri rek mais per yow wax nga wax ji parce que per père Birahim ni nga mel. nga daan bëre. ñu lay jox ay ay sarax naan lay génn ginaar bu xonq mm. génn ginaar bu weex. Mm. nga dem ba moment bii nga toll. nga nga bëgg a dindi loolu ci ci ci ci làmb loolu est sa que mën naa ne. waaw mais loolu dama ko dund ba dem ci xam ne la ba dem ba xam nga dara mënoo ci mënoo koo ràññee. Mm-hmm. te jaaroo ca. dëgg la café gi ñu la jox nii nga naan. Mhm. bu ñu ko tegoon ne fe bu boo boo ñam boo ko ñamee. Mhm. boo ko ñamul di nga xam suukar si ëpp wala bu. déedéet. da nga xam ndax weex na suukar wala saful mhm. suukar. waaye boo ko ñamuloon doo xam suukar si. kon ñun buñ ci jaaroon duñ ci mën a wax. déedéet dañ cee ko ba pare moo tax ñu mën cee wax. waaye buñ ci jaar woon duñ ci mën a wax mooy comme ni ma la ko waxee nii. suukaroon café gi rek tegal la ko fii boo ko ñamee rek ci ngay xam ne am na suukar wala amul suukar. noonu la affaire bi deme nag. ndeysaan. waaw fan yooyu di nga ci jaar ndax loolu. Mm. waaye boo demee ba toog nag ba tiim ko nag di nga xam ne am lu ci bari ay nax ci baree bari ay nax la woon. Mm-hmm. mu doon loo xamante ni démb euh, bokk nañ ci ñi ko doon suivre mm. euh, di jaajëfalaat bu baax Père Birahim Ndiaye ci xam bu sell bi mm-hmm. bari na loo xamante ni ci ci làmb mm-hmm. euh, lu ci baree baree bari war nañ ko mën a waxtaanee ci wàllu xarfa xuuf parce que xarfa xuufa nekk na mhm. loo xamante ni mhm. du ci làmb làmb rek mhm. euh, yi ci làmb ji moo feeñ parce que Modou Lo miy dem làmb ja takk ay sengoram euh, rango ay ay ay daakandaamam sex euh, béjjanam loolu dañ koy gis mais am na ci ñoo xamante ni tey li ñuy ràngoo seen biir yaram ñemewu sol lacoste wala ñu sol body yére olof rek la ñuy mën a sol père loolu lan gàllaaj yu bari yooyu ñu favoriser jël ko jël gàllaaj yi def ko fooy dem fii ak takkoo lu mat ay quarante kilos doo mën a gëm ni daal yow mi nekk nga en aise. waaw seen ngëm-ngëm a des rek. Mhm. xam nga ngëm-ngëm bu desee toujours nga wut lu la mottali. Mhm. sa ngëm-ngëm bu la desee loolu léeg-léeg nga gis ne takk fii galaaj nga dem ci benn jibar mooy la defal da nga jaar ci aéroport bi demal. boo nga takkal gala gi seereel ndomba gi juróom-ñaari kaw la boo ko takkee seere ko tëj da nga jaar dugg ci avion bi kenn du la gis hmm. est-ce que loolu ay di def ay di dañ ko daan def hmm. waaye bu ñu dem ñaa leen niip hmm. boo amul passeport amoo amoo visa amoo dara doo jàll booy dem ñu naa la niip bu yomboon aadama dem na bu yàgg. ñi ak keneen sax. aadama da ngaa yeb aadama rek. Ah. mais kon ñi kat tey kër bi kenn des. bu ñu teg ko de jiiri tey ku mu defal domb gi boo demee doo dem aéroport kenn du la téye. Mm-hmm. wala boo jàllee fii boo demee dëkk bi da ngay jàll facilement. Mm-hmm. kon ñëpp tey tey si kër day fees del kenn du fa mm-hmm. xaj. yooyu yëpp benn ay nax la. yoo xam ne yi day ciy nax nit ñi muy benn. daal nettali benn anecdote dama ànd ak sama benn xarit. mu ñu doon seeti benn waay boo xam ne bii mu ngi fële ci marsasum Cheikh ba maa koy nuyu de passage sama xarit la Mhm. ndeysaan ñu dem dafa am kuréel gaa galaaj fetal fetal waaw galaaj boo xam ne boo ko takkee mhm. dégg li ma la wax ku la dóor fetal ku la dóor fetal du jàll mhm. gis nga kër waaji bi ñu fi fanaanee toog moo tax may la ki ñam café gi rek boo xam ndax suukar ne wala déet dëgg la fanaan fi daw nañu ay sat ay deux lu mat quatre lu mat cinq cent kilomètres ci biir Casamance ci dëkk bu ñu te Marsassoum ci ginnaawam bi ñu nee waaji defaral ñu galaaj bi toog ne ma ñeme nga la fii ma takkal la kii bi nga def da ngay takk photo bi takk ko nga taxaw tiim jàkkaarloog moom mi après mu tiiri la bal bi cartouche bi. Mhm. ma ne ko man de du ma dem. <laughs> sama xarit ma ne ko demal mu ne man day dem ma ne ko mu ne demal ma ne ko mukk ci àddina man ma dem <laughs> ma ne ko nag wi ekle nga takk ko ci nag wi fi ñu waxee rek mu ne tëf ba bali tuuri sunu kaw nii mais takk ko ci nag bi nag da ko ne tëf rek xam naa ne am na nu mu të nu mu trafiqué uh, uh, kii bi uh, cartouche bi mhm. ba bi mu ko bal bali tàngi dafa daanu sunu kaw mais gis nga bi ñu ñëwee mu ne ma kii waa ji gëm ko nag sama xarit boobu gëm ko. Mhm. mais pour man ba tey ba ñu ñibbisi gëw ma affaire bi. Mhm. ñu ñibbisi booba temps fii ci stade bi ñu tabax stade bi amitié bi. Mhm. booba ay ay dund sable la. mu xëy dem jënd benn garaar teg ko foofu jël affaire bi takkal ko teg la jël fital bi. mais gis nga bi mu ko tiiree ginnaaw gi dafa tasaaroo. <laughs> ca suba gi. <laughs> man maa ngi yàkkati ba seet bi ma xëy ma ma ko. Cheikh xam naa bu seetaane émission bi dina dina reeba tas daal ne ma ne ko sawaay Cheikh alors affaire bi ni mu def mu ne ma fetal gi daa mer mhm. mu gi ni mu tàkke mosu dee tàkke <laughs> la wax billaahi wala ne ma mu ne ne ma gi dafa mer nii mu tàkke mosu dee tàkke kenn du ko essayé talu anamu tey am na ci loo xam ne lii mhm. euh, ay naxaate yu bëree bëri la booy mhm. ñi ci mën a bëri yëpp mu ngi feeñ Mm-hmm. waaw ñi ci ñemee mu ngi feeñ ñi ci mën a xeex mu ngi feeñ mm-hmm. ñi ci mën li ñuy def mu ngi feeñ mais ñi nga xam ne galaaj la ñuy fàttali ko la ñuy mottali ko xam nga lu ñuy mujje mm-hmm. diwo ma mii nekk diwo ma tojal ak diwo sàcc samay daal ak diwo def ne rek dañ sama gémb dañ koo def ne dañ maa ne la ñuy mujje loolu rek la ñuy mujjee nax yooyu rek. mais mais père am na ci ñoo xamante ne yàlla may na leen xam-xamu ñaan de dañuy. ñaan waaw ba tey ba tey jiri. xam nga man ba tey fii tey weddeegu ma ne ñaan amul. dëgg la waaye ñaan dafa am lu muy boot. fekk bootoo loolu mënoo am dara. xanaa xamoon ne ñu bari ñàkk nañ seen million fekk na ñàkk million koo xamoo leen ko weer. Mhm. seen ñaan waajur moo leen gën ci génne. seen ngërëmal waajur ak lu baax lu ñu def te yàlla tax loola nañ ci génne. baax loo def te yàlla tax ak lu waa ñaan waajur moo la ci génne waaye du sëriñ bi la ci génne. ndeysaan léeg-léeg na nga ñàkk loo xam ne lii. Mhm. ay woro la ko may xañ. ay wor ak ñàkk ngërëmal waajur. Mhm. fekk ñàkk ngay million yu bari lu ci nit. fekk na boobu sa alal li tax mu dem da ngaa ña da ngaa amoo ngërëmal waajur ba hmm. pare encore boole ci encore ay war nga jiital war yooyu nag moo ñu moytu ko jaan màtt hmm. la fekk dara moo tax base dafa am de hmm. bâtiment bi ñu toog li muy bi dëgërlu woon lu tutee koy daaneel maa la ko wax dëgg la fondation na ndaw nag mooy waajur ak jubal ak di lekk lu lew dëgg la lii rek mooy àddina booy dëgg la waaw euh, Oustaz Alioune Sall yàlla na fi yàgg loolu te amiin amiin moom da daan wax naan mhm. dafa am ku mosoon ñëw ci moom ne ko damaa bëggoon nga bindal ma baay waaw nee na mu bindal ko baay ree waaw nee na jox ko ne ko boo demee nga nga takk ko waa ji dem tekki ko xool gis lim ci bind mhm. mu ñëw laajaat ko ne ko li nga ci bind mooy lan bayre re laa la wax nga bindal ma bayre mu ne ko boo demee sa baay ngi dund mu ne ko waaw mu ne ko bu sa baay reewee rek nga am bayre kon mu mel ni mm. euh, xolal euh, seddal xolu waajur mm. day day yokk doom mm-hmm. waaye dalay mm-hmm. dalay may kawe ah, euh, muy doon loo xamante ni vraiment nit ñi dañuy dañuy sàgganee loolu tey dem ci ci ñi nga xamante ni dañuy ñaan képp ku lay ñaanal te kookee amul ngërëmu waajuram yow amoo sa ngërëmu waajur ñaan bi moom du mun a dëppoo. du dem fenn du dem fenn. wallaay Père Birahim kon ma lay jaajëfalaat bu baax a baax a baax. waaw namm naa la na mais gis naa tey sañse bi nga defaat Père temps yaa ngi may bëgg a gaañ ci sañse yi. ay waay ku may jàppale ma xeex ak Père ci sañse garaam boobu nag kañ laa koy am. waaw Père toogee fii ba ba wakasu. mer xaw a yooyu. non garaam bu da nga cee tolloogul nag. ah tolloo gu bañ. ah yéen ndaw ko yow ah, fii ne nii. yii la war ay màgget xam nga sedd bi bu ñëwee. Uh-huh. dootoo mën a tàng bi ñëwee. Uh-huh. ba tey sax tàngoor bi des na. parce que maa ngi nii ñaq nii ko. Uh-huh. waaw parce que clim bi ñëwagul. waaye rek dama ne bis boo fii ne pour nga mën a ubbi sa walis nag. foog nga bàyyi ba sedd bi ñëw nag nga ubbi walis bi nag. ah mais boo ñëwee jël troisième bi ma teg ko na le jël deuxième bi wala troisième bi laay sol nii su may wane fee ci tableau bi nag sol deux yi. ma gën a nekk à l'aise di mën a action yooyu yow fi mu ne ah, ñoom Adama ak ñoom ak ñoom ak kàggu ñoom ñëpp nag yu yi moo leen yut fi ngeen toll ah, fi de des fois war naa di laal garab pourtant ma ñëw takk pour de ah ah yow ma jëlee États-Unis ñu ko bi moom père faw nga def costume ma def costume ñu invité Balla Gaye 2 mbaa Gris Bordeaux wala Bombardier ñu hmm. def costume ñoom it ñu dem toog ah. war a def émission ah loolu lu neex lay doon loolu dina garaaw de ah loolu lu parce que ñoom nag dañ cee toll <laughs> uh-huh. waaye xam nga ñun comme ay mag lañu léegi dañuy dañuy jafandu uh-huh. rek dañuy jafandu rek dañuy jafandu di góorgóorlu rek parce que mm-hmm. àddina noon la mm-hmm. da seet li nga mën a kii rek mën a daal seet noo mën a ànd ñi ci àndi rafet rek bi àndi mu rafet njuum njuum te nag mënut a ñàkk ci doomu aadama mm-hmm. waaye yàlla na yàlla jéggal suñuy ci lu baax rek amiin yaa rabbal waaw àddina noonu la dëgg la waaye yëpp de moom ay kii la rek yow yaakaar naa bis boo bee sa olis man boo tuur sax. Ah. est-ce que dinaa ñëwati di di toog sa. ah sama dafa réer rek fan yii moo tax xam naa père bu may bëgg a gaañ ci say say sama caabi bi boo réer. Eh, waaw jiiri waay jiiri sa wala. gisuma ko yàlla baax la. xam naa mais bata moo ne su ma ne su ko daaj itam ba tey. non non xam naa Babacar borom Espagne wala bébé Awa ñoo ko sàcc rek. sama sa caabi ndax sañse bi may sañse temps yi xam naa moo tax ma teg sama caabi rek ah daf leen sonal waaw ah, moo tax mënumaa dajji sama ba mais <laughs> yàlla baax na ñu ma dajji mais dinaa ko ubbi euh, Père ma lay jaajëfalaat bu baax a baax a baax encore une fa di la tàggu ci tàggoo bi nga xamante ne moo dul tàqaliko di la jaajëfal waa jërëjëf yàlla na yàlla def ñu sutura te yàlla mu si ñu toogaay te yàlla may ñu wér fekk tal eh, ñu deen gunge rek parce que kanam waaw mm-hmm. ah, parce que mag ak gone moom suñu àndee. Mm-hmm. toujours ci gone ga rek. dëgg waaw ah, parce que yar ak teggin mooy lépp. Mm-hmm. te it wax dëgg yàlla fii si gis naa fi yar gis fi teggin. ñu seq ñun ñëpp jàmm daal. dëgg la waaw ah, di jàppalante kon yàlla yàlla defal sutura yàlla yàlla dooleel ñu nag. yàlla yàlla dooleel ñun ñu ñaan làmb ji nga xam ne sunu doom yaa ngi ciy soqaliku di ci foros seen wërsëg mm-hmm. ah yàlla yàlla teggi mbas mi ba kenn ku ne dellu say activité barakatu ak ñëpp daal képp ku yëngu ci dara daal mm-hmm. te mbas mi xaw koo gàllankoor yàlla na ko yàlla teggi jële ko fi mm-hmm. ba say mbir jóge fi gën a dox nag amin yaa ngeen jëf euh, Baye Djily la woon Père Birahim Ndiaye jàngat làmb ñu leen tàggoo ci tàggoo bi nga xamante ne moo dul tàqaliko ba ëllëg incha allah ci beneen xew-xewu Thank you.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 Njaay Fass Njaay nu roowu maak ñoom tuuna rëy ma juub waa na roy ma saay maa ko baaxi jeeg ñii ma yor si jeeg